man zanna ghayra llahi yughni aw yadur fazaaka fi daarayni sukabin wa waaw kay kon mbokk yi yaakaar naa ñun ñëpp ko gisandoo ñoo ñun ñëpp ko gisandoo tey dëppoo ak euh, gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2023 di benn fan ci weeru korité atum 1444 di bis bu màgg di bisu mbégte ñun ñëpp dundandoo nañu yëf yi waaye itam gis nañ julli gu am solo gi nga xamante ni Serigne Fallou Cheikh Abdou Khadre jiite na ko euh, ànd ak xutba bu am solo bi waaye itam gis nañ euh, kàddu yi dénkaan yu am solo yi nga xam ne Cheikh mun Mountakha dénkee na ko dénk ko mbokki jullit yëpp dénk ko mbokki taalibe yi dénk ko mboolem ñu ñu bokkal senegal ci ñuy jéem a dox jàmm di ci wax daan nag ñun murid yi nga xam ne ñooy taalibe Serigne Touba ñun kuy dox jàmm ci ñun la ko war a royee ndax kat ki ñu yaakaar tey ëllëg ci jàmm la sancee la la sampe yoon wii te xat dëmut kon loolu ab bindil bu rëy la boo xam ne mën nañ ne mën na nekk yóbbal ci mboolem sénégalais yi nga xamante ni ñooy dund tey ci biir réew mi euh, muy liggéey bu am solo boo xam ne ñi ngi ciy jaajëfal bu baax a baax daayira Muxaddamatul Xidma gépp dégg ngeen kàddu yi euh, cant yi nga xam ne sëriñ Afia yëkkati na ko waaye ñi ngi ciy jaajëfal mboolem ñi nga xamante ni ñoom lañ seqaloon liggéey bi moo xam ci ay partenaire la ci ñoo xamante ni ay kilifa lañ yoo xam ne euh, ñëw nañ jàpp ci liggéey bi waaye moo xam ay mbooloo yu jàpp ci liggéey bi moo xam euh, ay individus yu jàpp ci liggéey bi moo xam ay organes yu jàpp ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di beral cant bu baax a baax télévision Lamp Fall FM mi nga xamante ni ba mu xaddamatul xidma di di di samp mu mu télévision Lamp Fall euh, samp la jël léppam jébbal ko Serigne Touba ne mu xaddamatul xidma télé baa ngi noonu rajo baa ngi noonu amul heure amul temps lu ngeen ci bëgg def na ngeen ko ci def kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ay euh, communication la ñuy liggéey waaye nag di jaajëfal kuréel yi nga xam ne ci biir koor gi doon nañ liggéey buñ tuddee muxadamatul xidma ci la waaye mu assasatul wafa ci daarul moo moxti ci la waaye itam lu mel ne euh, euh, waa daari kaamil maktabatu Cheikhul Khadim ci waxtaan yu am solo yi ñoom itam gis nañ seen taxawaay gis nañ itam mboolem kuréel yi nga xamante ni dañ doon liggéey ci wàllu njàngum bu buñ ci tuddee xisbu euh, tarxiya ci al al mashrabu saafi min al manbai saafi moom itam gis ngeen njàng mu am solo bi fulkul masxun bale ca jurbel ca njaareem moom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ak mboolem fu ñu fiy jànge fulku moo xam Cees la moo xam ndakaaru moo xam fu mën a yëngatu ci lu baax ci weeru koor wi rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan nag ñu daje cee ngërëmul Serigne Touba kon GMT TV mi ngi leen di wax déwénati di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon liggéey bi Serigne Abdoul Khadir Bousso mi nga xam ne moo jiitee euh, technique bi ànd ak caméraman yi Serigne Cheikh Diop euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Fallou Sey ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Baye Serigne Bousso ñu ngi jaajëfal Serigne Mourtada moom nekk ci euh, régie bi di jaajëfal bu baax a baax sama caméraman bi nga xam ne Serigne Bàcc moom itam di ko jàmbaare diir weeru koor yëpp suba woon guddeeg bëccëg lépp li ñu def la ñuy bàyyi nekk fi de 9h à 23h lépp ngir bëgg rek fu waay mën a nekk di jëriñu ci li nga xam ne mooy balle fii ci jumaay Touba kon MKTV àndandoo ak GMT TV ak mbooleem organes yi ñu lëkkaloon ñu ngi leen di wax déwénati wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.